ginnaaw coowal passeport diplomatique bi nga xam ne moo lëmbee askan sunu gaal njuuj njaaj yeeg tappale yi ñu ci ay nit yoo xam ne ràññee nañ leen bu baax fii ci askan sunu gaal doon ay activiste ah, lu ci mel ni kilifa bu Y'en a marre ak Simon ak seen xarit boobee di Thierno Amadou Diallo bi nga xam ne moo leen filmé woon ah, ginnaaw leen caabi féete woon ginnaaw booba léegi nag ne cour fii ci askan sunu gaal kenn ku ne di ci yëy yàbbi ah, yàggul dara ci ay bés Simon moomee ñu bàyyi woon ko ginnaaw ba ñu waxee ne ab feebar may ko ab liberté provisoire waaye tamit Thierno Amadou Diallo moomee ñu mayoon ko tamit ab liberté provisoire waaye tamit ki nga xam ne moo nekkoon kilifa di Landing Mesane Seck euh, boobu néegi ñu bàyyiwoon ko foofee ci ndungu siin ba tax na waa FRAPP ak waa Y en euh, ñu taxaw fa suñu membre boobu noonu nga ne euh, a jaay doole di ko xoqatal daa mel ni nag waa a marre ak ci xeex boobu ñu doon xeex ndax nag seen naataango boobu noonu ci xibaar bu ñu waa a marre di xamle moom moomee kilifa Landing Mesane Seck kat dina ñibbi sekkeen ko ndax dina am li nga xam ne mooy ab liberté provisoire ko defee mu génn ndungu siin dem këram ah, booba ndég ni ci ay weer na ñu ko téewoon foofee ca kër buur di ko topp ci wàllum nju njaaj tappale ak passeport diplomatique ah, moom moomee fu mu ne nii mun nañ ne alhamdulilah ndax Landing Masaan Seck alias kilifa bu kër gi bokk yaanaamaar moom nag dañ koy bàyyi mu am liberté provisoire su ko defee mu ñibbi këram ah, bu ko ba defee nag mbir moomu noonu ñu topp ko booba ndég ni di enquête li nga xam ne moo nekk mbiru nju njaaj ak passeport diplomatique yooyu tappale yi ngeen topp toppee ki xam ne mooy kilifa ah, tegoon ko ci kaw ndoddam ba jàpp leen ne daal ki nga xam ne mooy kilifa moom am na ab liberté provisoire maanaam ab bàyyindiku ah, su ko defee mu ñibbi sekken xibaar baa ngi noonu jërë ngeen jëf